bon euh, commentaire ma ciy def mooy euh, mu ngi mu ngi progressé heureusement euh, bokkoon naa ci euh, ñi nga xamante ne bi doon nañ ko wax ni daaw sa saison bi nga xamante ne def na ko ak Tottenham n'était pas une très bonne saison mm-hmm. euh, il a il a il a su travailler et il a compris que ni euh, le haut niveau ça nécessite. ci ay déplacement am ak ay placement am sur le terrain. Mm-hmm. Euh, bokkoon naa aussi daaw ci ñu ne est-ce que c'était pas prématuré de rejoindre le championnat d'Angleterre est-ce que wuloon gën a toog France gën a defaat ses classes mais euh, peut-être ses conseil ak moom avenir bi jox na leen raison mm-hmm. parce qu'on voit en train de performer fi nga xamante ni bi moom mooy euh, Tottenham et leneen li nga xamante ni bi aussi yokk nañ ko n'oublions pas que Tottenham ils ont perdu leur meilleur joueur mooy Harry mais gisuñ ko ren mm-hmm. Tottenham daanaka début saison bu baax lañ nekk di mm-hmm. def et leneen li nga xamante ne mi gis nañ ko il commence aussi à s'imposer en équipe nationale surtout fi nga xamante ne lañ ko doon gën a xaaree. Mm. parce que amuloon place de titulaire. Mm. dañ ko doon jël jouer des bouts de match de fois il rentrait des fois il ne rentrait pas mais léegi bokk na ci daanaka treize joueurs yi nga xamante ne bi ni la coach national mun na compter ci ñoom. Mm. on lui souhaite toujours bonne chance di ko wax aussi mu gën a travailler waat et naagu. Mm-hmm. Euh, xam ni il n'a même pas encore atteint ses ses performances war na mun a gën a góorgóorlu. pour fu ñuy dégg moromam yëpp ñu dégg ko fa ci portée équipe nationale Sénégal parce que am nañ ci moom yaakaar. Mm. ndaxte bokk na ci xale yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy jox actuellement énormément de satisfaction.